Fatou Faak waaw gi ah sant yàlla rek dañu am ci mbégte lool sëriñ Touba dafa woote ne daal dañ ko sant la yàlla waaye mën ti nekk ku mën a dem dem ku mënta dem toog sa kër sant fa yàlla santale ko yàlla kon nag ñu ngi sant yàlla di ko ko santale léegi nag màggal gi moom macha allah kontaan nañ ci lool ci saxaar bi saxaar bi moom kontaan nañ ci lool ndax ñun doomu Cees lañu kon bu ñu indilaatee saxaar dañuy sant yàlla ñun yàlla baax yàlla nañ ko yàlla saxal na andi ñu jàmm ci suñu réewum Sénégal yi képp ku jàmm yàlla na yàlla jox jàmm jërëjëf sant bu baax mooy li ma la wax rek kontaan macha allah ndax man sama borom kër bu ko doon wax la ñu fay da daan saxaar yàlla def làqu na nag arrêté saxaar man sara saxaar rek laa daan dugg di voyage di dem Gossas bi ñëw cees bi dem dakaar waaw moo tax bi ma ko déggee ma ceeb kontaan bi ko toppatoo fii laa ñëw gaar bi laajte ñu ne ñu ngay jaay billet yi fële ma jël tata dem fa daal di jëlee sama waa kër ñëpp billet. yow yow ñaata billet nga jënd ndax séeréer ñi. waaw ñun billet 4000 lañ jël. léegi ñaata ñetti nit. waaw. man sama rakk sama doom ñetti nit. macha allah lii daal yàlla sax waaye nag xaw nañoo retard tuuti waaw xaw nañoo retard tuuti nag. waaw lan la yàlla def jàmm daal. dangay dem toujours Touba nag ah sant yàlla parce que train dëkk mënut am dox sans train bi njëkk mooy train te mooy alléger circulation bi mooy yóbbu comme marchandise yi. Ah. te dal na dugg train nag quand même ogo waga fango moom ci xawri naan yëpp confortable am na benn retard retard amul problème mais c'est que li ma mënta concevoir mooy ñu nekkuñ ci dëkk naar nekkuñ daal dans le monde tourisme c'est ça qui me dégoûte ça vraiment ça me na loo xam ne devenu producteur et frontière ou bien de l'équipe mais dafa am na yaa ñu xam ni loolu quoi dafa jëm ci waa xam ni loolu. xam loolu tax ñaan ñu ko yàlla muy am fii parce que am na loo xam ne kenn du ko gàttal ci dëkk saa di jëngal saa di xool di de contrôler mais am na loo xam ne daal ñu daal moomuñu ko daal ah on est pas a à ça quoi vraiment ah parce que loolu xam ne kenn du ko gàttal ki ci ko war a def yoon. c'est ça que daal euh, mooy seule chose que je qui m'a pas plu am na contrôle nag dafa war a am wala contrôle parce que contrôle mais am na loo xamante ni daal comme jaar këru kër yi xalaat ñu ko daal léegi est-ce bi ndax seer bi wala. non c'est abordable parce que boo xoolee euh, déplacement bi nga war a def ku dem garage wala dem jëli oto wala sa oto boo ko yoree li nga nar a lakk boo liggéey Touba di nga def au moins plus de quatre heures de temps pour di nga jëm train bi nga lay wàcc à à l'intérieur de la ville su nga bëgg a dem te or ba nga wàcc garage déjà taxi la lay fay ko quatre mille cinq mille sept mille parce mi moo tax amuñ fu mu jaar ah. sa oto boo koy daa moo foo jaar parce fii nii mooy